nga xam ne mooy soxna Aida bu bàyyi euh, moo leen defal vidéo ngir dalal xel yi ndax depuis suba ba léegi nit ñaa ngi wootee di inquiété wu ci li nga xam ne moom lañu ko waxal na dafa génn àdduna te naam loolu amul ndax mi ngi nii toog ni ko soxna Aida sànq waxee ndekki na añ na te ñu ngi waaj a reer te dana fi yàgg lool ci ànd ci barki Mawlana Cheikh Ibrahima sa bi ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar ak nga xel yi. waaw asalaamaaleykum waa àdduna asalaamaaleykum mboolem bi mm-hmm. maa ngi nuyu ñëpp ku ci nekk ci turam ak santam mm-hmm. waaye maa ngi masawu mboolem jullit maa ngi masawu képp koo xam ne nii tey xibaar gi am na jeexital bu mu def ci yow. Mm-hmm. parce que dafa métti dafa métti lool. te lu toll ni dee kenn du ko yéene kenn. naam dinaa dee. parce tey. ndem yonent bi sallallahu alayhi wa moo fi jógee li mm-hmm. hmm? mm-hmm. nga xam ne mooy suñu yaakaar mm-hmm. ana ñeneen ñoo xam ne nii ay kilifa lañ ku mel ni tey Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu anhu Seydil Haj Malick radiallahu anhu ak ñeneen ñoo xam ne nii ñoo ma gën fuuf tey ñoo ci biir suuf kon buñ ma waxee ne man damaa dee du ci am benn tiitaange aw ma ci dara loo xam ne lu ma jaaxal la parce que xam naa ne dama koy def waaye damay dalal xelu soppe yi rek pour wax leen ne leen maa ngi nii mhm. dara jotuma alhamdulilah macha allah maa ngi dëgër maa ngi ànd ak jàmm maa ngi liggéey sama liggéey mhm. waaw macha allah daal sant yàlla bu wér sant yàlla bu wér di wax beneen yoon rek maa ngi masawu képp koo xam ne dégg nga xibaar bi mhm. mu am lu mu def ci yow ci lu métti mhm. kon jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ngi mi ngi noonu yéen a ko déggandoo mhm. euh, sang baa ngi noonu ni ñu ko waxee noonu amul